mbokk yi xarit yi doomu ndey yi ñu topp ci daaray kaamil ñu ngi leen di nuyu di sant borom bi subhanahu wa taala ci xéewal gi mu nu defal di ñuy jéem di jéem a nekk bokk ci quraa'u cheikhul xadim cheikhul xadim amoon na ku ne amoon na ñu ne waaye ña gënaloon ca ñamu am mooy ña daan jàng alquran kon jéem a bokk ci jàngkati alquran yooyu di ko setantal di ci yokk sunu xam-xam loolu xéewaluk sunu borom la gu rëy gum ñu defal nañ ko ci sant di ñaan yàlla cheikh Mouhamadinil Muntaqa yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko sëriñ Moustapha jatara mi nga xam ni moo jiite liggéey bi ñu ngi koy ñaanal moom itam ci jàppandal gi ak lépp lu yombal liggéey bi rek ma nga di ko ci sant bu baax di sant mbokk yi nga xam yépp ñu ngi taxawu dars bi di leen jéggalu dañu fan yi dañoo bëroon ndax màggal gi ak gàmm gi kon jëlaat nañu bind bi tey nag ñu ngi dugg ci buntub haa u damirul waaxidi ñu jël bayit wi alqawlu fi haai damiri lwaxidi walxulfu fi lqasri wa maddin zaaidi bu fekkee ñu ngi tiim téere bi mën nañ koo xool alqawlu fi haai damiri lwaxidi mooy boppu bind bi ñuy jël tey bunt boobu mooy damir damir mooy lu ñuy tudd ci mu diw xaraf walla ay xaraf yuy taxaw taxawaayu tur te du tur waaye day wecci tur boo ne ra'aytu muhammadan gis naa muhammad kenn ni la foo ko gisee nga ni raaytuhu hu jooju day delluwaat ci nga bañ a baamtu raaytu muhammadan hu jooju nag loolu mooy damirul waaxid kon du hu joo gis ci alquran rek damirul waaxid la il faut mu am maanaam damirul waaxid muy benn dañuy bañ nga gis haa mel ni maa nafqahu wala afa anta tukrihu dañuy bañ nga gis haaju mel noonu nga jàppe ko damirul déedéet du damir kooku ha asli la bokkul damir haa ji nga xam ni dafa yor maanam damir waxoon naa leen nag ku bëgg a jàng qiraat da ngay farlu ci naxu soo farluwut ci naxu doo xàmmee damirul waaxid ak luy lool lu dul loolu kon benn charte ngoog mu nekk damir bañ a nekk asli ha asli ñaareelu charte bi mooy mu nekk waaxid mufrat atte bii muy bëgg a indi yóbbuwu ko ci damir ju mu mën a doon su dee damir ju mel ni raaytuha nga ni raaytu aisha ñu ni la ayna raaytaha nga ni raaytuha haa jooju nga wax bokku ci ndax boobu du du muzakkar mu annas la ndax boobu daa am alif gu koy ñoddi guy dox diggam ak ñu koy xëcc ka gàttal moom dañ koy xëcc saa su ne daa am alif gu ko xëcc xëccu koo xam ni dox na diggam ak ñu koy xëcc ka gàttal leer na kon damir ja day nekk muzakkar mu ñaareelu sart ba damir lay doon hmm? haa damir lay doon muzakkar lay doon waaye mufrat lay doon ndax raaytuhuma ma nga fi raaytuhum mu ngi fi waaye hum ak huma bokk ci hu rek moo ko tax a jóg ci alxuraan foo ko mën a nekk fu mu fa mën a nekk lan la ci warsh wax lan la ci xaalun wax lan la ci naafi wax fu mu mën a nekk nag ñu jàng ko topp ko tey kon wax nañ la damir ji mooy lan alha uma ma ma fi ma firi bayit wi nañ ko daan defee alqawlu bunta ngi borom téere bi moom bu waxee bëggee wax baabun danaan alqawlu loolu mooy waxe nam bunta ngi bu ñuy waxtaane lan fiiha id damiri ci haa gi nga xam ne day nekk damir damir dafa xaw a niroog dàkkantal am na ñetti tur haa ul idmar haa kinaaya haa ul mooy dàkkantal mooy ni ma la ko leerale léegi ci tur bi xaraf wa nga indi day dàkkan day indi day nekk dàkkantal ca tur wa waaye du mooy tur bi damiril waaxidi kon waaxidi gi xam nañ lu ko waral wal xulfu ak lay wuute wuuteb kan ak kan wuuteb xaaluun ak warsh jàngalu la wuuteb yeneen quraaw yi parce que téere bi ngay jàng muy durarul lawaami ci maqra naafi dong la xaaluun ak warsh dong seeni wuute la lay indil waaye kon ñoom ñaar seen wuute fan la xaaluun di ko guddale fan la koy gàttale lan la ñu dëppoo lan la ñu wuute loolu mooy bind bi wal xulf wuute gi tam du am ci xaagoogu ci damir jooju fii xasrin wa maddin zaidi lu dul ci xasr ak madd kañ lañ ko war a madd ak kañ lañ ko war a xasr madd ko mooy nga ni hu wala nga ni hi mooy xasru ko madd ko nga ni huu wala nga ni hii ndax léeg nga gis ko inna anzalnaahu xam nga doo wax inna anzalnaahu te pourtant moom la waaye nga gisaat anzalahu te kenn ki la de lu tax ñu def ko fii xasru fii ñu def ko mat ak kañ la xaaluun di xasru kañ la warsh di xasru lan mooy seen diggante loolu mooy bind bi dégg nañ ko bayit bi ma jàngale leer na alqawlu fi haai damiri alwaxidi walxulfu walxulfu fi lqasri wa maddin zaidi madd day dolliku ci kaw moom laa tax tudde ko noonu kon bunt boobu leer na ñaareelu bunt bi ñaareelu bayit wi waalam bi ann silata damiri waalam xamal ni lañ koy jokke bilwaawi aw bilyaai litakfiiri sila maanaam lañuy jokke damir ji jumtuwaay ya koy xëcc ñaar rekk la amul laneen luy xëcc damiru haa googu mooy bil yi ci waaw lay ame bu fekkee dafa damma wal aw bil yaa i walla ci yaa bu fekkee dafa kasra bu fekkee dafa damma nga ne lahu masalan walla walla bu fekkee dafa kasra nga ni bihi damma ak fatxa yépp haa xëcce hu waaw lay xëcce damma ak fatxa yépp waaw lay xëcce kasra di xëcce yaa moo tax mu ni bil waawi aw bil yaa i li taksiir yi baatub li taksiir ni mooy hu ji dafa woyof benn wenn xaraf la wenn xaraf la dafa woyof jafee maanaam dafa mel ni dafa rafle ñu koy yokkal ay xaraf ngir mënees koo tudd tudd gu set kon dañ koy baril dafa mel ni ku soloon am mbubb mbubb mi xaw a gàtt rek nga jël lu mel ni am mbàjj teg ko sa kaw pour yokke ko la nga sol fekk la nga sol daa gàtt wu ji dafa gàtt ñu bëgg koo yokke yaa walla waaw li taksiiri ngir baril xaraf ya kon wax na la li ko waral bayitu ñetteel wi فالهاء إن توسطت حركتين فالهاء ها جيم la jàngal intawas satat bu diggu doomoo ci diggante ñaari maska ñaari maska ñaari fatxa ñaari kasra ñaari damma su fekkee haa dox na ci diggante bi kon fa naafiun waxul warsh de naafi mooy warsha qaaluun ñoom ñaar ñépp kon bu ñuy jàng alxuraan ba àgg ci haa jooju yasiluha da koy jokk bi silatay ni ci ñaari jokkuwaay yi mu tuddoon muy waaw ak yaa mhm. leer na comme nga ni innahu huwa innahu huwa bi nga ne inna nuun googu dafa fatxa huu haa gi ci topp nga da koo xëcc lu tax nga xëcc ko parce que inna li ko jiitu dafa fatxa huwa la ca topp haa ga ca huwa eh, huwa gi ci topp eh, araf wa ca jiitu dañ koo fatxa kon diggante gi haa gi nekk diggante ñaari araf yu ñu maas moo tax nga nga nga xëcc ko moo tax waxoo innahu huwa wala nga ni bihi alim bihi alim kon xarakatay ni muy kasra muy fatxa muy damma du ci dara bu ci mën a doon ñaari xaraka yi ñaari maska ñaari xaraf yu ñu maas bu haa doxee ci seen diggante haa googu maqra naafi muy war qaaluun dañu koy xëcc bihi alim bihi alim ndax bihi baaga dafa dafa kasra alim ayin nga dafa dafa fatxa kon haa gi nekk ci seen diggante bihi alim lay doon waaye bihi alim la ko teqatle innahu huwa la leen teqatle mooy bii daf kasra da koo jiitu bii fatxa jiitu ko waaye ñaar yëpp dañ leen di xëcc bi silatayni ci ñaari xëccukaay yi leer na ma baamtu bayit woowu ndax ñaari bala ma ko baamtu ma gën koo saraa nga gën a dégg ñaari yëfëf ñetti yëf ba ñeenti yëfëf moo fi mën a nekk haa nekk ci diggante ñaari maaska walla mu ñaari xëcc nekk ci diggante ñaari xëcc walla mu nekk ci walla mu nekk ci diggante ak xëcc gu jiitu maaska walla ak maaska gu jiitu xëcc bi maanaa xëcc jiitu xaraf bi topp ci maaska topp ci walla maaska jiitu xaraf bi topp ci xëcc topp ci bu fekkee dafa nekk ci diggante ñaari maaska mooy misaal yii ñu la jox moo gën a bari ci alxuraan ñaari kasra ñaari fatxa ñaari damma wala kasra ak fatxa wala kasra en tout cas ñaari maska su fekkee dafa nekk ci diggante ak xëcc aku xëcc comme aataynahul kitaaba naa xëcc la hu ñëw li ci topp àll xëcc la moom it maanaam hamzatul wasl la goo xam ne day xëcc kon aataynahul kitaaba ñaari xëcc la haa gi nekk kon xam nga foofu nan koy def mooy dañ koy gàttal jàpp nga lool walla mu nekk ci diggante xëcc gu jiitu hmm? euh, xëcc goo xam ni dafa jiitu ak maska comme fiihi hudan fiihi hudan walla aqaluuhu aqaluuhu aqaluuhu aqaluuhu danga gis waaw moo jiitu mu di xëcc araf wi topp ci muy haagi topp ci xëcc gi kon moo jiitu maas topp ci yaa ngi dégg moo nekkaat ci fiihi yaa moo jiitu araf wi topp ci xëcc gi euh, araf wi topp ci ma araf wu ñu maas topp ci nga gisaat fu mel ni baatub lahul mulku lahul mulku maas moo jiitu xaraf mooy safaanu bee ak maas moo jiitu xaraf hu gi topp ci ak xëcc topp ci kon xaalaat yi gis nga ko ñeenti xaal benn bi mooy ñaari ñaari maas séq ko ba ca des mooy ñaari xëcc séq ko ba ca des mooy ak xëcc jiitu ak maas topp ci maanaam xëcc jiitu ko maas topp ci moom walla ak maas jiitu ko xëcc topp ci comme lahul lahul mulk ñeenti xaalaat yooyu ci la googu di nekk kon benn bi la la jàngalagul nee na benn bu njëkk bi mu la jàngal nag mooy mooy ñaari maas ñëw mu nekk ci diggante bi mu ni fa naafiun naafi bu boobaa yasiluhaa daf koy waslu kon booy jàng xaaluun xëcc ko booy jàng warsh xëcc ko loo leer na wala leeru def naa ni loolu kon mooy bun buntu boobu bindu bi ci topp mooy fa haau hadihi ka haai haadihi ka haa il mudmari fa wasluha bayna muharrikin xari wala muharrakin xari kon indil na la mooy lan wax na la mooy lan wax na la ci yan xaalaat lay nekk ci biir alxuraan wax na la li naafi di def waaye bu la nee naafi day def nangam kon bu laaj lu warsh di def bis bu la nee naafi lii lay def rek warsu loolu lay def booy jàng warsu kon lii mooy règle bi bind ba ca topp nag dalay indil la xaaluun di def sa saa yu la indilee lu xaaluun di def wax na la la warsu di def mooy safaanub la xaaluun di def moo waral ñoom ñaar bis bu la nee diw daa weex rek jàppal ni ka ca des daa ñuul hmm? ci ñaar ñooñu léegi nag fii moom mu ni fa fa haau haadihi haau haadihi haadihi xam nga haadihi nag haadihi mooy ismu ishaara la mooy jigéenaluk haza lu tax mu beral ko ak tudd parce que du haa u damir du haa u damir kon atte bi haa u damir a ko moomoon ca biir ca tàmbali ga nga topp ko mu ñëw ba yàgg mu ni la am na loo xam ni du damir ismu ishaara la waaye haa am dañ koy jox haa u atte haa u mudmar moo tax mu indil la ko beral na li fa haa u haadihi haa googu nekk ci haadihi hmm? ka haa il mudmari ci atte ci tajwid ci jàngin moo ko haa u mudmar ñoo moom am na lu sax ci moom am na lu sax ci moom li sax ci moom mooy kasraa ko jiitu gu sax gum dul teqale ko haadihi maas mën naa topp ci moom waaye sukun mën naa xëcc mën naa topp ci moom fu maas toppee ci moom lu mel ni haadihi naaqatullahi haadihi naaqatullahi di ak na maanaam ñaari maska maska kasra ak maska fatxa ñoo siq haa haadihi naaqatullahi fu xëcc di di di di di di ñëwee ci moom bariwul ci alxuraan mais am na anna yuxyi wala anne yuxyi hadihi llaahu bada mawtiha hadihi xam nga allaahu alif ja ko jiitu alifu alifu wasl la da nga koy da koy xëcc kon hadihi llaahu bada mawtiha waaye bul wax nag hadihi waxal hadihi lal salameñ mu mel ni ak basang soo ko bëggee tudd tudd gu wér te yolomal ko bu ko contract bu ko concentré boo nee haadihi llahu loolu njuumte la xata la yàq la dangay wax haadihi llaahu comme bismillaahi ni ko wolof di waxe ubbi ay ay tuñam <laughs> yaatal nii eh, gémmiñ gi yolomal làmmiñ yi wax haadihi llaahu loolu beneen bunt la danañ ci àgg buñ ci biir mooy lafzul jalaala nan lañ koy jànge wala laam nan lañ koy nutqe ci ay xaalaatam yu wuute waaye li ñu bëggoon a indi fii rek mooy haa u haasihi dañ koy yéegal ci haa u damir kon foofu la ñuy taxaw ndax bu ñu jëlaatee songaatee bunt bi day kii te vingt minutes yi mat na kon mais ñu tënk ñetti bayit yi alqawlu fi haai damiri alwaxidi walxulfu fi qasrin wa maddin zaaidi bunt bi day jàngale haau damirul waaxid ak wuuteegu xaaluun wuuteeg warsh ci fuñ ko war a madde ak fuñ ko war a xasre walam bi ann silata damiri bil waawi aw bil yaai lil taksiri xamal ni ni ñuy yokke damir haau damir ji la ci jublu ni ñu koy xëccee bil yaai ci bil waawi ci waaw rek lay nekke aw bil waawi wala ci waaw lu waral ñu di ko yokk mooy lit taksir yi mooy bëgg a yokk doole xaraf yi ba mu mën a taxaw mel ni baat falhaau in tawassatat xarakatayn fa naafiun yasiluha bi bi moom saa yu demee ci diggante ñaari maska ñaari maska fatxa kasra damma mooy ñooy maska ñaar yooyu buñ buñ ci nekk haa bi nekk seen diggante fa naafiun yasiluha bi silatayn koy jokkale ak ñaari jokkale da koy xëcc ñaari xëcc yi joxe nañ ci ay misaal comme innahu huwa wala bihi alim indi nañ ci ay misaal bu ci nekk nekkit man ngeen ma jëlal seen kaye ku nekk misaal bu nekk nga indil ma ci fukk yu ma waxul waaye misaal moom junj la rek pour nga mën a yaatal loolu sa gis-gis booy jàng di ko noté baytu mujj wi fa haau haadihi ka haail mudmari haau haadihi lay wax mooy du damir du haau damir ndax haadihi ismu ishaara la mooy mu annasu haada waaye nag dafa yéeg ci haa u mudmar moo tax mu ni fa wasluha qabla muharrakin nga waslu ko jëkk su ñëwee jiitu lu lu lu ñu maska mooy comme haadihi naaqatullaahi kon da ngay xëcc haadihi doo wax haadihi da ngay wax haadihi naaqatullaahi loolu la baax mu ni fa wasluha jokk ko xëcc ko qabla muharrakin jëkk bu fekkee dafa ñëw jiitu aw aw aw arafu ñu maas loolu xariyun lu war la bi maanaa jadiir wala waajibun walla lu mënta ñàkk la subhaanaka allahuma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh